mundaay bi lañu ubbil ubbil yële ubbil yële ubbil yële ubbil yële ubbil bële ubbil bële ubbil boobu ay góor ubbil waay voilà voilà léegi wàcc ci des yàlla sëñ Tuubaa waaw ñoom it ñu indee ngi lii nag lu muy métti métti li muy li muy li muy bari bëri bëri amuñu ci benn coono mbégte rek lañ ci am ci liggéeyal sëñ Tuubaa kon ñu ngi sant bu baax a baax bés bii bi ñu ko darajalee waa yëmbal lu rëy la ci ñun Touba yëmbal ak ak ak ak euh, gox yi ko wër lépp ñoom kenn desul kon lii taw feex la ci ñun gars yi def nañ ci lu ñu man ak lu ñu mënul moo ñu doon dem léegi ñoom sëñ Mbay Sylla jàmbaar yi nga xam ñëpp ko xam ci lislaam mu ànd ak fédération Touba yëpp ñu toog seen xéewal yeb ko ci ay oto laxasaayu ànd ak ay góor yàlla ñu bëgg ko séddale pour jox ko taalibi sëñ Tuubaa yi xay xam ne ñooñu ñëw ci biir ubbite jumaa Masaalikul Jinaan ñoo dajale fii tey nag di na xéewal yi buñ paree moo wane xéewal yi ni mu toll daa daañu joxe lépp sob yàlla kenn par kenn ba xëy dara du manque sob yàlla sëñ bi mbéy ko laaj sëñ Mbàkke nee lépp li ngeen togg ngeen da ko ci loxol Mbay Njaay moo tax ñu ñëw ànd ak ñun fii ci liggéey bi fii mooy waañ bi ñu seddale lépp jox ko tali bi ñu xewloo ko barke borom Touba ñu àndee nga xool nga xool teewaay tey mooy indi fi bari na yi nga xam ne nii ma nga jóge ci kër njaboot Cheikh Omar Diop ak Serigne Makhari Diop ci lu ko ñoom ñoo defar euh, xewal yëpp ba mel ni nga xam ne loog suñu Saliou bëggoon ñoo xam bi suñu Saliou bii nañ ko indi sama dëkkandoo yi ma dëkkal nag ak samay soxna yi nga xam ñu waa àndal ñoom coono bu ma ci am rek am nañ ci téeméeram waa Mbàkke noonu lañ koy fee ak waa Alaaji njabootu Alaaji Jaana Diop asme bii taxaw leen fi ak njabootu sama Makhari Diop ci lu koñ ba cité Sotiba mboolem ku fa dëkk ku ne sa dem nga ci sa alal dem nga ci sa coono kon nag ñu leen sant gërëm di sant nag Samba Diaw mi nga xam ne nii moo ñu booy ci liggéey ndax mooy jëruñ ji kon yal na yàlla barke lépp lii nag tàmbali bi la ndax ñe ci Mbàkke ñëw ñe ci Luwaa ngi ñëw ak waa Kaare bu soobee yàlla tambali baa ngi nii rek fii ak ñu rek ba fii jeex jërëjëf man maay Samba Diop Samba Diop kii moo tëkk mooy tudd Yande Bey ak sama soxna Aram Dieng mii man maay Alla Jande may sant yàlla may sant yàlla ci teraanga ji nga xayete ni euh, soxna Madika Ñaa def na ko soxna Xujja euh, loo mi nga xamante ni boole ñoo ko soxna ya aji moom Serigne fallu indi xéewali fii ci Masaalikul Jinaan fas yéene bernde dong Serigne Touba yi taalibe Serigne Touba yi ndax ko dégg Madika Ñaa xam ni xam ko ci taalibe xam ko ci bëgg Serigne Touba moo waral ñu indi xéewal